Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Je voudrais vous raconter une histoire, notre histoire, l'histoire de preux chevaliers, de guerriers de lumière et de femmes de vertu qui ont façonné chaque aspect de notre substrat culturel et fonde notre commun vouloir vivre ensemble. Je voudrais vous parler de ces hommes et de ces femmes, en partant par Tcherno Suleiman Bal, Elhaj Omar Foutuital, Sidi Haj Malik Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Maulana Cheikh Ibrahim et de tant d'autres, de femmes comme Yassine Boubou, Aline Sitoé, qui ont donné leur sang, alors que nous n'étions même pas encore ce pays que nous sommes aujourd'hui. qui ont donné leur connaissance, leur idéal de vie. Et c'est ça qui fait le Sénégal. li ma naqari tey jii rek dama am sentiment ni ñun ñii fi nekk nii ak ni ñu yeewoo ni kanam yi leeree ni ñuy yéenantee jàmm ñu ngi bëgg sàggan ba mujjee puso bi mu réer mujjee puso bi mu réer moo di suñu réew mii réewu par parloo lañ nekk léegi ku ànd ak man yaa fi gën loo wax noonu la loo def noonu la te loo mën ci def dara du la ci fekk ku àndul ak man amuloo benn droit nekkoo ci dëgg te loo yëkkati mu doon musiba jëm ci yow ñu war a doon ay mukallaf mujje di dof doflu ku nekk naan da ngay dof doflu maa la gën a dof et ce la là a besoin des énergies il a besoin de ce que nous avons de plus cher parce que taal sama kër wala ma jóge fa taal kër jàmbur entre ñun acteur politique xanaa xooluñu ni autour de la maison il y a douze quinze vingt autres maisons qui ne sont ni d'est ni d'ouest et pourtant si réew mi la ñu nekk ay gone ñoo fa nekk ay jigéen ñoo fa nekk ay mag ñoo fa nekk ay doom ñoo fa nekk monsieur le président de la république maa ngi ñaan yàlla liggéeyu rafet yi nga def yal na ko suñu borom gën a dëgëral mais jamono yii ñu toll nii il faut que ñu wax la li ay di jàmbat te di naqari nit ñi ci réew mi yépp ndax jàpp nañ ni feneen fu ñu ko mënti waxee amul sens fii lañ ko mën a waxee nopp yi ko war a dégg dégg ko ñu àndandoo sàkk si ay pexe pour Sénégal génn ci guute gii mu nekk nii man jàpp naa ni bare na. ci réew mi ñoo xamee ni ay ñu ngi yëngatu te nekkuñu fii bu ñu jàppee ne ñun ñi nekk fii rek ñun ñooy réew mi suñu gis-gis gàtt na torop te yow président de la république yilifoo ñi nga woo ñu ne la naam ñëw nañu ñi ñëwul tamit gàntal ak ñi bañ ak ñi féttéerlu ñoom ñëpp ci sa njaboot lañu bokk yow yaa war a def lu war a tax jàmm dellu si si biir réew mi jàmm nag dafa am njëg njëg li njëkk li mooy dëgg ñaareelu njëg li mooy yow mi koy woote nga wone ko jëfe ko seqi tànk dellu gannaaw wax nañ fi léegi nu lu ëpp ñeenti ñeenti téeméeri doomu aadama ñu ngi ci biir kaso bi liberté provisoire a ngi fi leneen a ngi fi leneen a ngi fi ni te yooyu yëpp war nañoo góorgóorlu ba bu ñu fi jógee tey jii mu doon loo xamee ni di nga fi génn ay dogal yoo xamee ni dina may ñi nga xamee ne dañoo bëgg jàmm sax si réew mi ay argument yu dëgër ñi nga xamee ni ab bëgguñoo jàmm sax si dëkk bi ñu bañati am benn argument bu ñuy demee dañoo war a àndandoo liggéey suñu réew et monsieur le président de la république il y a beaucoup de violence que nous devrons faire sur nous-mêmes pour l'imposer aux autres et taxaw lijjanti réew mi mu jëm sa kanam dialogue gi bare na presque résultat yëpp taxaw na man jàpp naa ne assemblée bi ay décision la war a doon décision jëm ci bulletin unique décision jëm ci réforme L30 L29 L30 l décision jëm ci nan la ñu war a voté décision jëm ci processus électoral décision fexe ba képp koo xamee ne bëgg nga bokk si élection yi te méngoog li nga xamee ne moo war tax nga bokk si nga bokk si te kenn bañ la bu ndaxataal ñu bañ a discriminer kenn parce que à la fin c'est le Sénégal qui doit gagner kenn fii moomul réew mi kenn moomu ko te kenn en commençant par le président de la république malgré li mu fi def yëpp tojogul réew mii ba war a tax kenn waru fi dee ngir moom et je pense que chaque d'entre nous doit se regarder les yeux dans les yeux et xoolaat boppam par rapport ak acte yu ñuy def ak wax yu ñuy def réewu xam-xam la yor réewu xam la ñu yor réewu jukko la ñu yor nan la ñu mën a sàggane ba nga xamee ni là où l'argument doit privilégier là où les règles doivent être respectées là où les Sénégalais doivent être sur le même pied d'égalité ñu diverger diverger ba nga xamee ni ñu sax kenn wax sa morom dégg et pourtant on est en état de droit et on proclame qu'on est une démocratie mûre ce pays-là nous devons le construire ensemble nous l'avons pris de nos aînés et nous devons le transmettre à nos à ce rythme-là le pétrole comme toute autre richesse risque d'être une malédiction pour nous alors que nous devrons les utiliser pour que jafe-jafe yi nit dund ci dëkk bi tartar yuy nekkee ñu teggi leen ko bu ñu leen boolee seen tartar ak seen jafe-jafe ci ko nag di taal suñuy kër di taal seeni kër boole kaak jafe-jafe fitna bu dul jeex c'est une double peine que les Sénégalais ne méritent pas je pense que je me suis bien fait comprendre maa ngi jéggalu si ñëpp nag yéen rek mooy Sénégal jëm sa kanam te Sénégal googu benn bopp la am si tey jii jusqu'à preuve du contraire monsieur le président la République yow yaa ñu war a jiite yaa ñu war a ñoddi bañ a xool sa bopp xool sa cër ndax soo wàccee lépp dal di soppeeku ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ñaari mbir nee na waxta si mu bi dafa wax ni benn boo bëggee jiite say nawle danga war a góor góorgóorlu ba nit ñi duñu ragal sa loxo duñu ragal sa làmmiñ loo am jox leen te lu ñu am nga bàyyi ak ñoom mu teg si ni wa axrinaa yaa rabbanaa bil xitma lil muslimina abadan wa rahma dañu war a taxaw pour liggéeyal sénégalais yi nous devons être tous des soldats de ce pays en dehors de nos divergences liggéey pour réew mi jëm kanam parce qu'il y a suffisamment d'énergie suffisamment d'intelligence suffisamment de bonne volonté pour que ñu tabax Sénégal bi ñu gërëm maa ngi leen di gërëm di leen sant